pourquoi il ne fait pas l'unanimité concrètement Amadou Ba ne fait pas l'unanimité au sein ah, du parti. Ah, c'est vous qui le dites. C'est un ah, fait. Il fait pas l'unanimité, monsieur le maire. Monsieur le ministre, loolu loolu loolu. Mais mais s'il y avait s'il y avait quelqu'un qui faisait l'unanimité, il y aurait pas d'élection. Xam nga daam loo sànq nee nga sànq am lu mu wax sànq lu am solo nee nga mën nga bañ a d'accord mais bu bu instance yi décidé da nga ciy plié wu. ma jox la exemple mais tey jii c'est pas le cas avec avec vous. ma jox la exemple euh, États-Unis du ay primaires la ñuy def. ci mhm. même kuréel gi. oui ça veut dire que mais après ils soutiennent le candidat choisi. sorti vainqueur mais ndaw si euh, elle a elle a pas encore soutenu donc loolu mais <laughs> le, le, le candidat va continuer son. est-ce que vous n'êtes pas en train de fermer les yeux ci lu apparent loo xam ne mën na leen coûter cher ëllëg. à dix jours de parce que sànq Amadou Ba il a pas suspendu euh, sa tournée ñëw Dakar en catastrophe loolu mënu leen ko nier. Hmm. dama lay jox benn exemple <laughs> j'ai entendu beaucoup de gens dire <clears throat> que tous les ministres tous les responsables ont boycotté. Hmm. l'investiture de enfin pas l'investiture. c'était la réunion la réunion campagne bi wala. Euh, moi j'y étais pas. On moi, ne parle que de deux ministres présents. Ouais, moi, j'y étais du pas. directoire de campagne élargie. Voilà. voilà. Moi, j'y étais pas pour une simple raison. Je ne suis pas dans le directoire. D'accord. Ah Je ne suis pas dans le directoire, donc quand on convoque le directoire... Non, c'est pas que ça ne me concernait pas, mais man mhm. kurel bu ne bokk naa kuréel yu bëri mais kuréel bu ma bokkul du ma fa teew. loolu rek la mais les gens ont pensé que dama boycotté foofu. ñun ñëpp foofu la ñuy tëral. xool leen directoire b est-ce que kan moo bi. ah mais directoire bi nag xam nga candidat bi moo moo valide son directoire. est-ce que c'est euh, pas ça le problème est-ce que c'est pas ça le attendez le directoire kooku xam nga man pare Alioune tey soxla nañ ma feneen fu dul ci ay groupe de réunion ak i machin. Mhm. man fi ñu ma soxla mooy li may de fan yëpp. mooy lan këroo kër ma dugg fa. Mhm. di wax ak samay nit. Mhm. man foofu lañ ma soxla. vous ah, de faire quotidiennement. man foofu lañ ma foofu njëriñ boobu laa mën a amal nañ ñi man njëriñ bi mu mën a amal li ci ëpp fii ci Ndakaaru man naa ko am feneen nag parce que macha allah <laughs> voilà de gànjool fële ci suuf ba ci ay Casamance ay Sédhiou kii Ziguinchor bëri yor naa fay mbokk yàlla yaa ngi wax sànq vous allez gagner au premier tour mais toute cette polémique est-ce qu'elle ne euh, dessert pas votre candidat y' a y' a des choses que je dirais pas là parce que je veux pas quand même. mais bëgg naa am sa avis en fait. ci ci xam nga daal du ma ko wax bëgguma gars ñun. parce que <laughs> problème am na en fait malaise am na. là il se passe quelque chose ouais il se passe quelque chose. non malaise bu profond non xam ngeen loolu moo lay arrangé. non mais dafa am malaise palpable. tabax na ko sànq on est à 12 jours de la présidentielle ah. mais on est à 12 jours mon candidat en campagne. mais il a arrêté tout à l'heure dama ne demain j'ai conseil des ministres. d'accord du dëgg c'est vrai que le conseil. il a de ses fonctions de premier ministre. ñi ko jege ñu teg leen ci touche bi. renforcer ñi nga xam ne ñoo ko doon euh, critiquer. renforcer wuñu leen. si Mame Mbaye Niang Thérèse Faye. on pas un mois <laughs> voilà du de euh, de de de des élections. un candidat am na ñoo xam ne ñun jàpp am na ñenn ñu jàppoon ni yàgg depuis lañ ko waroon décharger mu dem toppatoo mais une présidentielle c'est un c'est le candidat face à son peuple. Mm-hmm. et le gouvernement c'est quelque chose de lourd à coordonner. Amadou Ba là il dormait pas ah boo ko seetlu boo seetlu leen ko il dormait pas. et vous pensez qu'il est plus tranquille maintenant non mais il peut se consacrer à sa campagne maintenant il peut se permettre de dire tey maa ngi Thiès maa ngi fële maa ngi nangam et cetera avoir son programme de campagne. il peut le faire a été rappelé tout la République en pleine campagne devoir stopper net la campagne. vous au courant de ça non <laughs> non vous l'apprend. non je vous donne un exemple. son meeting de Mbacké moi j'ai partout que c'était annulé alors que y a jamais eu une once d'annulation mais bi moo wax ñu dégg bii moo wax ñu dégg bii moom moo wax bon mais le président de la République patron de la coalition Benno Bokk Yaakaar man de bu ma woon fu ma nekk ma bàyyi ñëw parce que bu ma waxul jox ma man ay <laughs> fee mu ne nii le candidat là il a besoin de aujourd'hui mm-hmm. fuñ mais président bu ko woowee il a besoin de le voir il dit ko bu ko waxul jox ko mm-hmm. mais mais mais je dis encore une fois moi je veux pas apprécier ces choses parce que euh, je veux pas aussi m'embrouiller la tête moi je suis politique euh, je le fais souvent d'ailleurs de façon scientifique moom mooy moom mooy peut-être éloigné de certaines personnes parce que mm-hmm. pour moi jàpp naa ni ça aussi c'est une science ah c'est mm-hmm. pas lu ñuy def comme ça Bien sûr. Euh, donc je suis dans une logique qui est là pour l'instant man sama parti euh, ci ndigal ci waxtaan ci respect de no dañu euh, investir benn candidat parce que moom la bennoo teg comme candidat c'est le maire c'est pas le maire c'est pas mon débat aujourd'hui li ñuy mën a may ñu gagner mooy ñun ñëpp ñu def nii mm-hmm. ñu pour ñu ñu gagner donc vous n'êtes pas de ceux qui le critiquent mais moi je critique personne vous m'avez entendu critiquer les autres euh, qui non bëgg a xam sa position ci mbir bi non mais pourquoi mais comme je man man li may def sama c'est par choix par conviction mm-hmm. pourquoi voulez-vous keneen ma bañal ko loolu non ku xalaat ni yow fi mu ne nii sa heure moo jot <laughs> nga def sa sa langue sa droit nga doxal. Ah. peut-être ñenn yi waroon nañ ko def bien avant. man lii moo ko naroon def ci bennoo j'allais quand même me retirer bien avant bien avant pour quand même nit ñi xam ni voilà mais doo toog ñenn ñi je vois c'est c'est c'est en présentant leur candidature qu'ils ont quitté de euh, fonctions qu'ils occupaient dans Benno. Mm -hmm. mm exemple. ah mais mais mais les les accusations. yi jëm ci moom ci wàllum corruption depuis cinq am na ay ah. audio yu circulé authenticité bi xamuñu ci dara mais c'est c'est assez grave quand te lu gën tuuti loolu moo tax président arrêté woon processus bi euh, parce qu'il y avait le conseil au banc des accusés tey jii c'est votre candidat moom la accusé lu garaaw a bon audio yi man j'avoue ko benn laa ci jot mais j'avais rien vu dedans benn mhm. c'était il y a de cela quelques jours mhm. les autres peut-être gisuguma ko mais vous man mii sax j'ai été victime de ces choses-là. Mm. Ah, aujourd'hui personne n'est à de ça. aujourd'hui vous très bien que fi nga toog nii mën nañ la teg léegi sur une plage. Mm. à naa là-bas di la wax loolu loo xam ne mosoo ko wax. donc il faut faire très attention surtout. Mm. parce que nous sommes tous menacés ay borom kër la ñu. c'est vrai nous sommes tous menacés. Euh, loolu c'est ma première observation. deuxièmement mooy que ni euh, aujourd'hui ñun man de sama président mooy Macky Sall maa je connaissais pas l'homme maa ko pratiqué ba dem tànn ko dëgg parce que jàpp naa ni li mu doon li muy def ci réew mi les Sénégalais s'en rendront compte après loolu laa jàpp euh, te heureusement am na yu bëri yoo xam ne pour man stabiliser na ko ci wàllu loi et cetera bés bu ko naree soppi fii moom les gens feront face aux Sénégalais nuy protéger suñu ressources yeeg et cetera loolu au moins pour man xaw na ko stabiliser parce que légiféré na. nous sommes l'un des rares sinon le seul à avoir légiféré sur des ressources comme ça avant même qu'elles n'arrivent et ça c'est important donc euh, euh, am na kum ma joxoñ euh, ànd naa ci ba keroog ñu may joxoñ leneen te foog naa ni fii ak dimanche parce que les élections coow lu bëri lépp dimanche la dimanche bee di ñëw la.